jërë ngeen jëf yéen ñi safoo di teewlu seen xibaar info yegg si nañ ak beneenu xibaar jëm ci góor gi njaay moom góor gi njaay nag kenn dootu ko présenté fii ci réew mi gannaaw ba nga xamante ne toog na ay at yoo xamante ne kenn tegu ko benn yoon ci paysage médiatique bi loolee nag daal nay waral ba sorte ba mujj bi nga xamante ne daal dina koy def def ci ab vidéo wala sax ab photo daal di génn ci réseau sociaux yi ñu bëri nag dañoo jaaxle ci melokaan bi nga xamante ne kii Gorgui Ndiaye daal dina koy am matin ba mu yor ak jaaro bi nga xamante tak daal dina ko fay eh, waral ba ñu bëri daal di jàpp ne ki la di góor gi njaay dafay xeesal wala sax muy def promotion ñi la di borom ñaari tuur mom moom góor gi njaay nag daal ngir indi ay leeral ci mbir moomule moom nag ma ngay xamle ne teint bi nga xamante ne daal dina koy yor kaka ray rek mooy ki nga banyu ne moo ko ndax dafa ëppal puudar bi ba ñu bëri jàpp ne day yoon rawatina filtre bi nga xamante ne daal dinañu eh, def taf ci photo bi daal di gën a yokk ci xarma karaw moom góor gi njaay nag euh, ma ngay leeral ne dafa am ay maamu pël loolee waral nag mu daal di am ba mu yor maanaam euh, daal di xees jaara ba mu takk nag ma euh, leeral ne la ko indi nag mooy moom doomu gawlo te moom nag laata muy juddu am na juróomi mag yoo xamante ne yaayam daf leen daal di suul maanaam yaayam dafa yaradaloon loole waral nag ba ñu daal di koy bënnee or moom nag ngir dekkal cosaan moo tax mu war a indiwaat jaaro boobu boobule daal di koy takk rawatina ba muy waajal ab clip bu yees daal di ci bëgg dekkalaat aada ak cosaan fii ci réew bu Sénégal. moom góor gi njaay nag ma ngay jeexal ay kàddoom di xamle ne doomu lébu ku ko xam nag dinga ko xam ci fulla ak fayda tam jom ba pare nangoo liggéey doxul benn yoon ci lu ñàkk fayda. loolee nag moo waral ba di coow li jugee nag moom daf ko daal di jëlee ak philosophie méttiwu ko benn yoon ndax xam na ne li ñuy teg ci daram nekkul loo xamante ne lu am la ndax moom nag yëgul tinul deful bay nag naan day promouvoir lépp lu jëm ci boroma ñaari tur yi wala sax naan di xeesal.